jërë ngeen jëf di rafetlu ànd bi ak Equivox TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo dal leen ak jàmm ci seen bulletin d'information ñu jukkee ko ak euh, wàllum feebar bi di coronavirus moom nag mi ngi la wëyal yoonam file ci Sénégal nege ni tey nag àllarba fukki fan ak ñett ci atum deux mille vingt et un junni ak juróom ñaari téeméer ak juróom-ñeent ñoom la ñu jot ci bile jàngoro ci ñooñu nag am na ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne dañoo. daal di euh, positif euh, ci biir ñooñu positif nag am na ci juróom-benn ak fukk ak ñaar yoo xam ne ay cas contact la téeméer ak fanweer ak benn yoo xam ne ay euh, cas communautaire bonjour je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 318 du ministère de la santé et de l'action sociale de ce mercredi 13 janvier 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1709 tests réalisés, 198 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,59%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 62 cas contacts suivi par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et il de la transmission communautaire répartis comme suit. Thiès, 14. Kaolack, 12. à Touba. 9 à Dakar Plateau. à Mermoz. 5 à Matam, Mbour, Popengine et Tivaouane. 4 à Kermassar, Mamel et Yoff. 3 à Wakam, Parcelles Asseni, Sacré-Cœur Tamba. 2 à Amitié 3, Djepel, Grand Yoff, Guédiawaye, Kafrine, Mboro, Norfoire et Pikine. 1 à Birkelane cité Africa cité Alia John cité Djily cité Mixta Diourbel fas Fatick HLM Kër Momar Sarr Koumpentoum Liberté 6 Mariste Médina Ngor Ñaari Tali Pire E Richard Toll et Saint-Louis. 119 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 12 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À

présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. ba ñi desandi ci feebar bi di coronavirus ñooñu na nga xam ne ñoom la ñoo jàppoon fële ca alma di ñuy amal seen piscine party boobu noonu ñeent ci ñoom lañ testé ñu am jàngoro bi di coronavirus ci ñooñu nag. am na ci koo xam ne ab doomu ministre la di responsable ci parti socialiste. ñu àddu jëmali ci mbirum disparition wu Diary Sow di meilleur élève bu Sénégal moom nag mi ngi réer ci le 4 janvier 2021 ci disparition boobu nag ginnaaw waa police wu euh, fële ca Toulouse bi ñu amalee enquête bi daal dinañ rek xamle ne disparition bi niroo na loo xam ne rek c'est volontaire maanaam loo xam ne da ko neex ndaxte nag buñ sukkandikoo buñ sukkandikoo ci euh, vidéo de surveillance yi ak euh, bagage yi nga xam ne jot nañ ko fekk ci néegu jaari sow mel na ni rek demam bi da ko daal di programmer ñu àddu jëmale ci euh, mbirum ay euh, Aïssatou sey di nekkoon nag soxna ci ki nga xam ne moo di jóoba euh, Iseg ginnaaw nag bi mu jotee ak ki nga xam ne moo nekkoon ex yi jëkkëram di Diop Iseg ñu xëccoo ab benn kër goo xam ne moo nekk fële ci ca Sacré Cœur ku nekk rek naan maa moom bile kër kii di jóoba Iseg daal di woon déposer plainte ba ay Aïssatou Diop Seydi actuellement mu ngi ci loxo yoon bu buñ sukkandikoo ci journal L'Observateur son dossier a été confié au juge du huitième cabinet qui va statuer sur son cas aujourd'hui fi mu nekk nii nag parquet bi dafa demander ouverture information judiciaire contre X pour escroquerie faux et isage de faux abus de confiance bu ñu jógee foofu rek ñu àddu jëmale ci rappeur bi di 10 000 problèmes moom nag ginnaaw ba mu violé loi bi dal di génn ci euh, heure couvre fa mel ni rek da doon def incitation à la violence ndaxte nag dafa génn di daal di woo ndaw yi ngir ñu opposé wu li nga xam ne moo di décision bi nga xam ne président Macky Sall jëloon na ko ci noonu nag daal di nañ ko daan ñetti weeru kaso yoo xam ne du ko tëdd euh, ci biir jàpp bi ñu ko jotoon a jàpp nag daal di na ci ñàkk ki nga xam ne moo di waajuram bu jigéen. gestion de la société de Dakar Dem Dikk kii di. Omar Boun Khattab si la nekk actuel directeur Dakar Dem Dikk génnoon na amal ay tuuma ci ndoddu ki nga xam ne moo di maître Moussa Diop xamle rek ne ci restaurant yi nga xam ne ñoo nekk foofu wala ci boobule entreprise rek. ñaari soxnaay Moussa Diop ñoo occupé woon ñaari restaurant yooyu maanaam ku nekk rek yor ci ab benn restaurant boole ci tamit maître Moussa Diop bu muy quitté boobule entreprise rek dafa bàyyi dette bu toll ni ci 40 milliards. ki nga xam ne nag moo di maître Moussa Diop nekk ex directeur entreprise bi daal dina amal ab point de presse démb génn rek ngir démentir li nga xam ne rek moo di tuumaal yi nga xam ne. Omar daal dina ko def ci ndoddam bi moo xam ne rek ne bu muy génn ci boobule entreprise bàyyi fa benn dette ndaxte kees bi desoon na lu tolloog 81 millions ci suñu koppar mu mel ni rek maître Moussa Diop lank na ba tëdd ci suuf rek xam le ne kii li muy wax dara amu ci mbokk yi egsi nañu ci càppaandal bi fii lekk la ñuy daal di ndar képp xibaar yi di leen jox dig daje suba ak jàmm incha allah.